waaw pour dossier bi moom pièces yëpp lañ daal di euh, jébbal li nga xam mooy waa conseil constitutionnel pour jéem a xool tamit càmbar gi kañ lay tàmbali. waaw ginnaaw contrôle bi nga xam ne kat moom la ñuy xaar ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi ñun nag dañuy daal di euh, waajal di euh, régler li nga xam mooy suñu campagne ngir mën ci sóobu. ak tamit li nga xam ne gis nañ ko mooy teg suñuy comité électoraux waaye tam mën a organiser wu baax a baax loolu daal lañ waaye tamit mën nañ jàpp ne rek bés bu màgg la waaye tamit lépp daal yemb na macha allah te dañuy xaar rek euh, li nga xam ne mooy euh, jàkkaarloog waa commission nationale bi nga xam ne moo yor wàllum contrôle parrainage jot nañu suñu convocation fan yi di ñëw yi tamit ngir mën a xool tamit ci fan lay toll.